dafa am responsabilité bu bees bu ma la dënk loolu tam du ma ñëw ba fii parcelle même bu dee circonstance dëj la te du ma ko wax ci kanamu mbokk yi ndax ñu taxaw jàppale la si ndax yaakaar mooy tax ñu joxoñ la waaw joxoñ naa la nag ci ndakaaru nga ànd ko nag ak waa ndakaaru yëpp waa Benno Bokk Yaakaar euh, ci aussi kilifteefu premier ministre mu jiite liste bi Dakar nga ànd ak ñoom Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ñi nga xam ni ñooy élus yi nekk ci biir euh, Ndakaaru ñi bokk parti socialiste ñi bokk alliance des force du progrès muy AFP ak population yëpp jiital boobu laa bëgg ñoom ñu jàppale la si xam ne euh, sas la te am naa yaakaar ne di nga ànd ak ñoom ni mu waree ñoom it ñu jàppale la ngir yaakaar bi ma am ba joxoñ la ci liggéey boobu nga ànd ko nag ak ñi nga xam ne ñoom laa leen booleel te ñoom itam ñu am mérite bokk ci liggéey boobu kon yaakaar naa ne lii ma fi gisit dal na xel ci ni nga dundee ak waa parcelle ci ni nga dundee ak say mbokk ni nga dundee ak say ñooñ